defee nag ñu daal di jàppale candidat bu Amadou Ba ngir mën a sóobu ci lu jëm ci wàllu parrainage yi jamono joojee tribune yëglekaay ne Macky kay fi mu toll nii nag buux na Amadou Ba ci kanamu ndaw ñi ginnaaw tournée bu mu doon amal fi mu toll nii nag ñu ngi waajal ab conseil présidentiel yu jëm ci wàllu ndaw ñi daan ci waxtaanee lu jëm ci ñàkk xëyum ndaw ñi nga xam ne nag boobaak léegi jafe-jafe la ngir kilifa yi wut ci ay saafara bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bii di tribune des ba tey ci kàddu yi président Macky Sall ak déclaration patrimoine l'observateur xëy tey di ñu xamal ni Macky Sall taxawal na ay cible gërëm ba noppi nag te dinañu yokk compétence yu waa of nag bu ko defee nag ñu mën a waajal déclaration yu dul dëgg ak daan yi nga xam ne moo ca aju yéenekaay bi di enquête nag xëy fësal ci xëtam bu njëkk kàddu yoo xam ne rek moom la président Macky Sall la yëkkati mu di kàddu yu naqar jëmale ko ci li mu jàppee ay trahison ak i déception ci biir xibaar yi njiitu réew mi di xam ne ni politique moom saay su nekk moo ki trahison ñooy ànd àdduna ci lu jëm ci coowal Ousmane Sonko liir leen yéenekaay boobee di enquête Le Soleil yëglekaay di ko feelu ca wet ga Sall ne ay saafara kay jamono ji bëgg na koo indi ci lépp loo xam ne rek ay digale yu mu diggoon askan wa yeewoo ca Kolda ca Kaolack ca Kaffrine ak ca Fatick ginnaaw tournée économique bi mu doon amal lu yàggul dara ba noppi yëglekaay bii di la Soleil xam le ne nag jamono ji njiitu réew mi mi ngi ci wàccaay de ngir dem ca Matam ca Louga ca diwaan bu Saint-Louis naka noonu ca Diourbel ba ca Ziguinchor te balaa yàgg dara daa ñu amal ab conseil présidentiel bu ñu jagleel ndaw ñi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ci dunduk Ousmane Sonko bi bu yeboo ñu dem tëddi te nelaw ginnaaw grève de la faim yi mu nekkee woon jamono ji nag mu ngi ci bonne santé moom Ousmane Sonko dundam ak nekkinam ci prison bi yëglekaay bi dellu siwaat na ci Guy Marius Sagna di xamle ci biir yëglekaay bi ne état bi mu fekkee Ousmane Sonko gëj na ko cee gis te it nag donte ni doon na amal ay grève de la faim waaye nag fi mu toll nii ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mu ngi ci jàmmam ak salaamam Ousmane Sonko mu ne ci forme loolee nag la yéenekaay bi di Les Échos xëy fësal ci xëtam bu njëkk ginnaaw ay nemmeeku yoo xam ne rek ay leader ñu ngi koy amal jamono ji ca Cap la ku ci mel ne Guy mari Sagna Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye ku ci nekk yaa ngay fësal anam ba nga fekkee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko euh, ci prison bi yër leen yéenekaay bi ngir ay leeral bés bi la jour ne Sonko kay ma ngay gën a jekkalaatub toogaayam ngir mën a jonoo ak état bu la Guy mari Sagna di xamle ci biir yëglekaay bi ne Ousmane Sonko kay jamono ji ay tactique yu yees tàq la indi ngir mën a jàkkaarloog état bu Sénégal ci yëglekaay bii di yor yor taxawaayu patriote yeeg mbooloo mi ñu am nag ci dogg gi ñu dogg ngir dajale ay fii ci réewu Sénégal diaspora bi ca la xëy nag defub jàngat moom ngi ci ginnaawam beneenub candidat buy waajal élection présidentielle yi jamono ji nag Karim Meïssa Wade la moom nag ca Doha ga mu nekk ma nga fay waajal nag lu jëm ci élection présidentielle yi candidat PDS boobee bu ñu sukkandikoo ci ay ñoñam balaa yàgg dara daañu ko gis fii ci réew Sénégal ngir lu jëm ci les élections le quotidien yëglekaay dikk ci budget bu toll si junniy milliards bu ñu nattal wàllu jàng meeg jàngale mi yëglekaay bi dellu siwaat ci le koppax ne ci dépense personnel bi lay dugg ak it ñàkkum jàngalekat bi ñu nemmeeku ci njàng meeg njàngale mi rawatina ay table bon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay jafe-jafe la yu ñuy tudd saay su nekk ci biir njàng meeg njàngale mi fii ci réewu Sénégal ba tey lu jëm ci njàng meeg njàngale mi laas yëglekaay di àddu nag ci ni ñu war a dooraatee njàng mi foofee ca UCAD ginnaaw bi ñu caxat-caxatee daara joojee kii di Moussa Baldé jëwriñ ji nag ma ngay sàkku ñu teg lépp ci suuf nag ba jël matukaay yi ba noppi ngir mën a sóobuwaat ci njàng meeg njàngale mi cumul de fonction sàkku ci waa ARTP ñu génn ci patt pataaral gi ñu nekk ña ngay violé bi de loolee nag la xëy daal di fësal tey jii ci xëtam bu njëkk libération xëy taxaw ci diggante yoon ak nit dof Colline Faye Sat Sadia ak El Hadj ñoom ñii ñëpp nag seen i nekk ca kanam yoon ci ay retour de parquet yoo xam ne am nañu ko lu jëm ci mbirum rappeur bi di nit dof parquet bi li muy sàkku rek mooy ñu amal ab mandat de dépôt ci mbiram tey jii la ñu fas bi tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale stade nag dellu siwaat